bon wax dëgg yàlla fi mu toll nii moom euh, dañoo teel a yoon bi trop trop trop trop mën nañ ñu ko bàyyil ba événement yi passé fi mu toll nii boo calculer ni pour nga génn diggante juuti ba guy gi ak fii rek foog nga def deux foog nga def deux heures de temps waaw yaa ngi consommé gasoil te et puis tamit xam nga du yoon embouteillage bi dina a dina gën a bëri en plus baaxul si yenn oto yi parce que am na yenn oto yoo xam ne am problème dañuy fay affaire yu noonu. métti rek Fall. métti trop parce que lii nii xam nga rek ñun ñaa ngi bëgg a dem ah ay yite lañ yor war faa dem yenn heure yi mënuñ faa yegg xam nga lii métti na quoi affaire yi métti na trop métti na trop wax dëgg yàlla parce que Tëngéej masul mel ni kon bu melee nii ñun dañuy jaaxle daal fi mu toll nii moom daanaka jaaxle nañ te dara xewul tabaski des 12 jours moo boo xoolee tali bi doo dem doo avancé waaw tey jii da ngay jox ni rendez-vous mu toog di la xaar pour nga génn Tëngéej rek foog nga def ci une heure wala deux heures temps xam nga ne loolu du yoon quoi ah situation bi de garaaw na trop billaay ñun ñoo ngi nii sax suñu kër fii lañ dëkk mais poussière bi dañuy bëgg a rey ñoo ngi nii bëgg a dem marché mais dañoo ñëw ba fii sax gis nga xamatuñu nan la ñuy jaar daal affaire bi garaaw na daal. di leen xamal ni ñun vraiment lii man li ma ko jàppe mooy état Sénégal ci boppam dañoo daanu man appareil la mais état bi ci boppam dañoo daanu parce que lu toll ni aw askan tey euh, euh, lawis dañ ko tëj. te lawis boobu déviation la boo xam ne dafa arrangé woon askan wi yëpp bu ñu demee ba di ko tëj war nañ avertir askan wi war nañ utaat beneen déviation boo xam ne askan wi war nañ fa mën a jaar pour dem mais lii tey nit ñaa ngi bole ko fii amuñu lu ñu yóbbu am mënuñoo dem mënuñoo dikk loolu teguñu ko fenn jekkul jaadul bokkul ci respecter saw askan te loolu président la république ministère bi nga xam ne moom la jox liggéey bi mu gere ko war na wax ak moom wax nu muy nu ñuy gérer liggéey bi parce que liggéey bi jaarut yoon te waxuñu ko dëgg waxuñu président dëgg gi ko war a wax nañ ko wax dëgg askan wi sonn nañu maar nañ ñu bokk APR ak ñu bokkul APR ñëpp sonn nañu. bon c'est compliqué hein franchement compliqué na trop parce que depuis ay minutes ñu ngi taxaw fii plus de trente minutes mënuñu mënuñu jàll camion bloqué na fii déviation terre bi c'est c'est compliqué mais bon. ñi defar terre bi aussi dañ ko def dans le cadre d'aménager d'améliorer les conditions de vie des des des des des des populations mais dafay am aussi ay gàllankoor yu muy yu muy jur yu muy engendré. maa ngi dikk fi ndar bu ndaw xam ngeen ndar bu ndaw géej na jege na teer bi waa ndar bu ndaw yëpp presque ñoom ñëpp dem nañ ci te baraag kenn desul ñun rek ñoo des jéggi bi dafa métti ci ñun tabaarkalla macha allah boo toogee nga am juróom-ñaari fukki at mag doy na surtout maa nga feebar man beek laa yore beek laa yore nu may duggee fii métti na nu may génnee metti na. léeg-léeg wëtër moo may indi bu may ñibbi wëtër moo may kii te si lii laa dund njaay si njaay laa dund. métti na trop parce que fii di matin au soir dañ koy nettoyé amatuñu benn sécurité bu génn ci biti teg fi lekk quoi que soit loo fi teg day poussière et puis yëpp day tilim bon vraiment dund bi métti na trop moom. waaw bu ñu dañuy xëy dañu ko arrosé au moins sax poussière bi mais xoolal fi di matin au soir dañ fiy nekk place lekk dafa war a am benn hygiène bi waaw bu ñu doon mën a xëy chaque jour ñu ngi koy arrosé moom laa dina xaw a vraiment métti moom métti na jafe-jafe xale yi dañ leen di du ñu mën a jéggi tali bi gis nga tali bi ni mu ñu jegee nii xar yi daral bi xale yi daal amatuñu daal léegi sax fu ñu fawee. par rapport ak poussière bi defagul benn effet ci euh, santé euh, ñi nga xamante ni ñu ngi ci kër. waaw waaw def na ko kañ te parce que man maa ngi nii poussière bi arrangé wu ma parce que damaa amee chirurgie ba yàqu suñu waa kër tamit la même chose ñenn ñi amee asthme loolu baaxul. gis nga te ñu ne sant mooy loolu dañoo fajoo fajoo faju ba sonn da nga am port de séparation parce que fu ñu toll ñu ñëpp dañuy sëqat kii day sëqat tey kii sëqat suba li ñuy métti parfois li yàlla def sax dañu am mutuelle santé dañuy dem chaque chaque de un mois dañuy dem consultation xool suñu yaram moo ñu may chance suñu patron moo ñu koy defal mais vraiment métti na waaw presque chaque jour ñoo ngi fii poussière bi ak soj bi yëpp ànd na fi jàngoro yi tamit mën nañ cee jëlee jàngoro bu ne ndax ñun lekk la ñuy jaay fii nekk nañ fi loo xam ni il faut ñu xool nu ñuy defee liggéey bi daal te ñun ñooñ protéger suñu liggéey. ah mais bu ñu def bu ñuy defar moom lu ñuy defar yëpp dañ koy muur ba mu ba ñoo xam ne poussière daal bu ñëwee du du mën a dugg si biir waaw loolu daal ñun ñoo ngi koy def. wotiri bi bu muy jaar fii lay jaar jaar ni ci eh, kii bi. ci déviage bi jaar rukko dem maar bee boor Nimsaat tourné bee ndar bu ndaw wàcce ma xam nga sax wàcce na ma léeg-léeg doo am wotiri parce que day wax dafa guddi munul jaar foofu léeg-léeg xale góor yi mel na yow jàppama fii jàppama fii mu dool dal ci kii bi métti na torop munuñ ci dara noonu métti na torop terre bi moom sopp terre bi moom soppeegul dara parce que terre bi dañoo amul suñu place yi baax ñu dund ci terre bi ñëw jël suñu place kenn ku nekk ñi trois cent mille ñi quatre cent mille nga lekk benn bés mu jeex nga dund ci bunt buntu place jàmbur yi maa ngi ni ñaata lañ la joxoon man 400000 lañ muy joxoon si suma palaas te ñaar fukki at maa ngi si suma palaas. liggéey bi daal war naa def war nañoo def liggéey bu gaaw daal liggéey bi nekk liggéey bu gaaw poussière bi daal ñun ñu poussière bi moo ñu gën a sonal daal ñun poussière bi moo ñu gën a sonal. solution bi jàll na c'est-à-dire avant ñuy doon entamer euh, terre bi je pense je pense que dañu waroon defar d'abord déviation yi ba pare a xam ne oto yi bu ñëw di nga mën a dévier. après ñoom ñu soog dinañ bàyyi tali yi nga xamante ne moom lañ tàmmoon comme tali bële léegi avant terre bi ñu koy defar defar nañ déviation bi ba pare oto yi bu ñu ñëwee léegi déviation bi la jël du bokk dara ak terre bi. avant mu doon def lii bu bala ba bala mu woon a créer lii dafa waroon a créer déviation yi ni ñi am fu ñu jaar mais defu ko ba nit ñu amuñu fu ñu jaar ba bisab tey jii ba mu demee nii à dernière semaine à fête de tabaski muy fête bi a rëy ci sénégalais mu demee nii loolu tegul fenn mu ngi koy mooy muñ bàyyi leen ak yàlla te des ak yàlla. loolu daal laa fi xamoon. rajo euh, appel Macky Sall na dimbal ñu mu gaaw teer bi pare mu Sénégal kam alhamdulilah rabbil alamin yàlla may na ko may nañu may nañu ko tànk noonu yàlla may na ko ñun aduna yëpp bëgg na ko ba may ko na jàpp fukki loxo ak benn mu dimbal waa ñu gis ne euh, terre bi bi ñu ko commencé ak léegi euh, jur na ay problème yu bari ci riverains yi nga xamante ni ñu ngi dund ci alentour bi euh, situation bu nu mel en tant que natif de de de Tëngéej nan nga dundee nan ngeen di dundee situation a ah, métti na de man mi rek daanu naa fi jéggi raay bi nii di dem rek damaa taxis daay daanu bari na ñoo xam ne dañ fiy daanu xam nga te affaire yi c'est fee ñuy jàllale moom gaa moom dafa sori moom. maa ngi tudd aw Fall dëkk Dangu. non mais sonn rek. sonn trop trop trop déjà fii amul benn sécurité gis nga ñi fii jaar plein jour mi ngi leen dem ñuul kukk kon bu gënee timis xamu fan lañ jëm Rufisque moom ñoo gën a subir conséquence yi sonn nañ ba fu sonn di yem te xamuñu nag kan lay yegg moo ngi nii yéen ko gis ak seen bopp sonn nañ trop. tànku maire yi dam rek ak géej gi sonn rek. ah tànku maire yi day damm. bu baax. lan moo lan moo waral dañuy tarxiis xeer yee tax dañuy tarxiis ku tarxiis da ngay gis boo yeggee sa tànk damm. sonn nañu wax dëgg yàlla. ko wax côté wérgu yaram. santé yëpp pollution bi yëpp ak kii bi si tawee boo moytuwul affaire yi si kër yi la jëm. nit ñi feebar nañu wax dëgg yàlla te nit ñi oto yi ba pare doo am ku la ku la assuré mag ñu bëri euh, damm nañ fi ah. à cause ko indi woon dina saafara situation. ñu defoon ñu yoon ne moo a suufee bee rek pour mag ñi ñi fay mag ñi fay jaar waaw loolu moom fooy nekkee mën naa nekk moom. sécurité gendarme war nañu am gendarme war nañu am observateur wala kii. Euh, AFP yi ñu ñëw teew le maire de la ville war nañu ñëw contrôler fii ñëw jaar fii population bi ñëpp a sonn boo tëjee oto yi konoon euh, yi la yëpp dara dara dox ñëpp a feebar. lii moom baax na fi lool lii ñuy def nii baax na fi lool ci la jaar.